envahir France mhm. dafa jox ordre militaire yi ne leen bu leen bu leen bu leen bu leen détruire benn œuvre d'art mhm. bu leen yàq benn monument yow laa gis ay ay artistes euh, culture école de beaux-arts di grève nga envoyé ay policiers ñu dóor leen damm seeni œuvre waaw <laughs> tu vois donc bon dëkk bi il nous faut des personnes yoo xamante ni ils sont esprit libre quoi mhm. xaaruñ dara ci état est-ce que yaa ngi ne mais Macky Sall eh, man j'ai toujours considéré Macky Sall comme un accident accident la sax. causé par les bêtises de Wade. c'est vrai c'est vrai. mais malheureusement fi ñu ñàkkee sens mooy que ni il a tous les défauts de Wade mais il n'a pas ses qualités. sans ah, wax ji jeex ko mhm. fi mu toll nii nattu la quoi nattu sans que Sall moom nattu la boo xamante ni te li gën a moo ñu dal xam nga kër. Mhm. kilifa yi bu ñu xamadee. déedéet mhm. waay. waay ah c'est extraordinaire. crise bu muy créé day day war de. la wallaay dëgg la. kër bu kilifa yi xamadee. ndaw ñu ci des nu ñuy def. kan may lijjanti problème bi Sénégal ne crise boobu moo ñu dal Sénégal dafa bëri kilifa yoo xamante ni ñoom il se croit. crise de tu vois keroog boo xoolee fële na lee seen dialogue bi mais ñi fa dem taxaw ñëpp di wax surtout man li ma ci gën a métti mooy ñi nga xamante ni on les comme ni nga koy waxee on les nomme kilifa diine. Mhm. comprendre nga. et des kilifa aada. mais di di di di di déformer les les les aya alxuraan au lieu que ñu wax droit ak justice ñuy wax passion ak ak ak ak désir mm. <laughs> est que yaa ngi ah jural ñu gàcce boo xamante ni on dirait que te l'islam ma yàgg naa ko wax l'islam ñaari point rek lay traité l'état de droit ak l'état d'âme mm-hmm. dëkk bi nag nu mu demee nii crise économique bi crise sociale bi kii bi crise de valeur yi moom moo ko jur ah crise de valeur yi ñoo ko jur fii moom gars yi seen ruux yi dafa tilima ah. mm. il faut que ñu réformer ko de. <laughs> professeur euh, ma ni ma def ak Moustapha ma def ak Jëwriñ Ndiassé mooy état de la démocratie état de droit ci réew mi comment se porte euh, loolu ñuy jàppee ne démocratie droit la ci réew mi. non l' état de droit n' existe mm. plus au Sénégal vraiment mm. ça n' existe euh, plus au Sénégal. ndax l' de droit c' un état qui soumis lui-même au droit. fii au Sénégal wax dëgg yàlla on a vu des décisions de justice par légion du ñaar du benn du ñett yoo xam ne autorités yi ko censé appliquer. Mhm. nee ñun suñu yoon nekk suñu appliqué wuñu ko. Mhm. bu ci mujj rek mooy euh, conseil constitutionnel. dans les meilleurs délais kay yow looy woote dialogue. prend une date dans les meilleurs délais nga nga def un décret. Mhm. mais le conseil constitutionnel joxe joxe déc joxe décision. décision ki est censée s'imposer à tous les pouvoirs publics. tu le piétines tu convoques un dialogue ne da ngay xool pour tànn date. nga jox ay yeneen nit ne tànn ma date nga xam ni kon fii état de droit dëgg yàlla amatu fi et man euh, peut-être du objet débat bi mais dañ ci mën a gën a xootal man dama gis un phénomène bu gën a grave encore euh, au Sénégal gis naa nu aar suñu élection euh, que je salue seen initiative yëpp nu ñu taxawee ci xeex la loi bu assemblée def bu yóbbu woon élection bi le 15 décembre ñëpp maa sa nangu ne cette loi là elle est anticonstitutionnelle ndax dafa toucher ci leen li nga xam ne dafa am benn intangibilité ñu protéger ko loolu mun ñu ko yokk mais am na une loi bu ko gën a catastrophique qui est passée et elle est anticonstitutionnelle muy la loi sur l'OFNAC et loi boobu gis naa ni personne n'en parle loi boobu dafa catastrophique ba nga xam ne euh, jibi on a violé sax l'article 88 de la constitution bi ba parce que l'article 88 consacre que le pouvoir judiciaire euh, doit être euh, de exercé indépendamment même du pouvoir législatif et exécutif et que ce pouvoir judiciaire doit être incarné par l'hymne conseil constitutionnel cour suprême nangam ak nangam ak les cours et tribunaux mais la nouvelle loi de l'OFNAC consacre des des droits de parquet au président de l'OFNAC on lui donne la capacité de poursuite de se dessaisir ci parquet financier bi de dessaisir la capacité de mettre en garde à vue comme comme comme comme officier judiciaire maanaam lu ñu jox ci prérogative le président de l'OFNAC moo ëpp solo sax OFNAC ci boobu et pire on donne la possibilité au président de l'OFNAC de faire une médiation pénale nit amel mu toog waxtaan ak moom jël classé dossier mais lii c'est dangereux dama ci c'est dangereux maanaam lii c'est c'est anticonstitutionnel et c'est pas normal xaw ma kan moo nax sénégalais yi dugal ko en procédure kenn waxtaanee ko dëkk bi kenn yëgu ko sax en fait. ñun ay député yuy seetaan ay ay téléfilm ci biir assemblée la ñu am ñi nga xam ne ils viennent le ils viennent le matin ne gars yi kat waa président li mu wax gars yi ah, bi mu andi nii yaa xam te ne ko de da ngeen ko voté ñoo toog di seen ay téléfilm teg seen ay écouteur di xaar heure vote président assemblée sax moom en 4 secondes moom compté na fi 104 saa yi xam nga ni nag ñun. mais 4 secondes mu de xool ne 104 nga xam ni c'est extraordinaire ñun nous n'avons plus de parlementaires yoo xam ne du député peuple amatuñ ko. ñoo am des députés d'un parti ku nekk sa parti nga représenté sa consigne parti ngay xaar boo ñëwee matin pour appliquer lii c'est dangereux je répète nag mhm. la loi sur l'offre nag man dinaa si def xam naa waxtaan bu gën a xóot ak ay bind ah c'est très grave li ñu jox le président de l'OFNAC muy Bassirou Gueye bi nga xam ne fii la jaar moo nekkoon procureur la République ñu récompensé ko nag prérogatives yu ñu koy jox te ce sont des prérogatives exorbitantes du yoon ñu koy jox muy benn euh, lof nag appartient à l'ordre administratif c'est un office bi nga xam ne euh, ci état la dépend ci moom lay def warul am pouvoiru parquet bay ji koy jaawatle ak benn genre tribunal bi nga xam ne entre parenthèses mm-hmm. lii c'est une lii c'est une forfaiture mm-hmm. te lii maa ngi ciy la société civile war ci taxaw donc c'est euh, yow moom sa bos euh, fi may ñëwee mooy dans la semaine également ndax li ma leen laaj yëpp ay actualité la dans la semaine également ñu ne meeku ne gis nañu euh, kenn ci suñu ay jigéen bu nekk ci média bi di may Maimouna Ndour Faye ñu ne dañ ko agressé dañ ko jam donc ci bi mu paree émission bay ñibbi déjà jam geek ni mbir yi demee ba yegg si fi ñu yegg si ban jàngat nga ci def yow. waaw d'abord di ko naqarlu di ko masawu di ko ñaanal yàlla mu tane xam nga le vingt quatre février deux mille vingt deux yaakaar naa dama toog ci benn plateau émission matinal di waxtaan ma ne leen rythme bii ma gis dakaar bu changé wut taux de criminalité bi dana fi exploser à tel point dakaar bi bii dinañ ko méngaleeg ay villes yu mel ni Lagos Johannesburg wala Pretoria. nga xam ne niveau d'insécurité bi dafa toll à tel point que nit ñi dañuy barricadé wu ci ay quartier pour mun a dund paisiblement te loolu léegi yaa ngi ko fiy commencé gis ñun suñu quartier yi ay Sicap léegi da ngay romb gis barrière ñu teg ya te loolu amul woon man Sicap laa juddoo fa maa gis waxuma laak nag quartier résidentiel bi parce que niveau d'insécurité bi day toll à tel point que fenn dootul wóor te loolu gis nga li koy favoriser. mooy inégalité sociale bi situation de précarité bu doy waar ak benn manque d'espoir de s'en sortir maanaam ñàkk yaakaar te gis nga doomi aadama bi bis bu demee ba ñàkk yaakaar ba nga xam ne amatul yaakaar génn ci dafay nekk menace ci société bi parce que day dellu état bàyyi ma bi maanaam l'instinct de survie c'est vrai day façonné di réagir comme bàyyi ma maanaam comme animal pour lekk ah Cheikh Ousmane na gis naa mu téye benn affaire naa dem jam ko jël ko pour faj sa soxla yàlla tere x y génn ba ci may mun a naa ko jam jigéen la am na saagam amaana am na lu ci nekk nit ki bu demee ba toll ci station boobu loolu problème la danger ambulant la ci société bi mais malheureusement Sénégal du ñu régler problème hmm. moo tax keroog bi may mun a bi attaque bi amee agression bi ñi génn wax du ñoon ñoo waroon wax te boo xoolee les politiques rek a fa feesoon ku ci nekk di xool noo ko tiiree yow ci sa yow ci sa agenda kii naan xëppoon nañ ma suuf kii naan fëggoon nañ sama oto kii naan tagewoon nañ ma keroog boroom xam-xam yee waroon génn wax génn na ah société bii kat nañu xool nu ñu pensé moo yi nga xam ni voilà keroog ñoo ñoo waroon wax mais malheureusement gisoo leen fa. yaa que les politiques. gis nga réew mi dafa am benn affaire maa ngi wax nag depuis des années muy bombu jeune. buñ ko tegul ci table bi réglé ko. bu kalaatee réew mi kenn du ci mucc. moo commencé wane ay grainam ndànk-ndànk nii. Sénégal dafa nekk benn virage boo xam ne en enjeu yëpp man je pense que les acteurs. jëluñ lépp en considération soit fii la réew mi di jaaree métamorphosé wu. Hmm. nekk benn dëkk bu paisible comme benn Qatar où tout le monde bien ku nekk di. Hmm. maanaam di ci gis sa bopp. wala ñu nekk pire que sax ay Johannesburg yi nga xam ni taux de criminalité bi mais dafa explosé. chaque minute am na kuy dee ci agression. Hmm. yow ñemewoo wàcce sa veeru téléphone nekk ci tali bi di wax téléphone mais loolu commencé na am Dakar. am na zone yoo xam ne boo fa tollee da sécurité sa oto waxuma la ah, wàcc weer da ngay sécurité sa oto c'est vrai de criminalité boobu di explosé nga xam ne inégalité sociale nag moo ko waral ak hmm. précarité bu metti bëgg ci génn hmm. mënoo ci génn amoo hmm. yaakaar ni dañ ci génn mais duñ ko régler yaakaar les politiques ñooy wax man Sénégal rek laa gis réew moo xam ne professeur bu mën da amee c'est les politiques qui parlent <laughs> dégg loolu de bu Covid amee c' est les politiques qui bu agression amee c' est les politiques bu débat ci diina amee c' est les politiques mais ban réew moo defaru ci loxo ñooñu. wallaay wax <laughs> réew da ngay toog benn sax da ngay woo les sociologues woo borom xam-xam yi ñu ñu waxtaanee société bi. fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun oh, billaahi billaahi moo tax keroog malheureusement pour daaneel mhm. bi affaire bi amee mu suivre intervenant man a ah problème bi ba léegi joxo guñ ko baaraamu tuuma mhm. problème d'insécurité moo posé wu ci réew mi c'est vrai ku ko wax moo am ku ko waxul moo am mhm. te société bi dafa nekk en période de mutation buñ ko teelul régler yëf yi day kalaat suñ kaw man dama koy faral di wax jour bi équipe nationale bi jëlee coupe d'Afrique bi ñu nekk ci joie bi di jubilé mhm. ma xool image yi gis ndaw yi niñ toll mhm. dafa génn ci jeune j'ai eu peur <laughs> ñu fi ñu nekkoon dama ne réew boo amee mbooloo bu toll nii ci mhm. jeune ñu bëri lool macha allah identifié tuñu seen bopp ci société bi repères yi ñu amoon mi ngi leen di réer wala gisatuñu yooyu mooy repères yi loolu catastrophe la. mais malheureusement ba fi ñu toll ni yow kañ nga mës a dégg. réew mi ay boromi yi xam-xam génn na nañu waxtaanee situation wu ndaw ñi. Mm-hmm. waxuma lay politique borom yi xam-xam yi la. tant qu'on réglera pas ce problème. Mm-hmm. situation yu mel nii du dañ. Mm-hmm. di ñu dal ñi ngi koy déplorer rek di ko naqarlu bu baax a baax a baax. parce dama jàpp ni ci société bu civilisée. acte boobu amu fa place man je ne parle pas d'acte euh, envers la presse liberté d'expression man du ma ci parax parax mm. loolu enquête laay bàyyi procureur rek FDS yi wax ma na ma ndax journaliste bi lañ attaqué mm. wala personne bi lañ attaqué mm-hmm. Mm-hmm. mais niveau d'insécurité ci réew mi ak mm. situation jeunes yi c'est à régler particulièrement nag ñu nekk à la merci de la wala agression simple la. wala agression commandité la quoi. effectivement da nga da nga posé un phénomène social. xam nga violence. fait social la. Mhm. le fait social on le trouve dans toutes les sociétés. te dafa am benn caractéristique bu ñu bokk mooy généralité. Mhm. extérieur ak loo xam ne dafay am benn coercition bu ñuy mhm. si nit ki noonu la ñuy mooy ñett yi nga xam ne ñooy qualifier un fait social. donc comme c'est un fait social léegi société bu day xool naka la koy appréhender. naka la koy dogalee. naka la koy accompagner ak naka la ciy sóoree ëllëg. loolu mooy moo indi solo ci débat bi nga violence bi taux de criminalité ak zone criminogène yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal. professeur euh, laaj bi benn la ah, li ma ko laaj rek comme ni ma defee ak ñoom ñaar. mais ñaari borom xam-xam ñoo wax ci mbir mi. dama mu ne fait social daf ma yóbbu ci muus parce que man avec la monnaie dañoo jëm c'est un fait social total. ak ñoom Marcel Mouss. donc euh, ñii ay borom xam-xam ñoo nekk di wax instant yi analyse bu mu def nii. Hmm. analyse mënu ko gën a wér ji bi. borom xam-xam yi dañoo wax ne. quand on a une démographie mhm. euh, majoritairement juvénile nam ay mhm. jeunes ñoo fa ëpp Sénégal fii ñëpp nangu nañ ni mhm. soixante quinze pour cent de la population ont moins de trente cinq ans kon fii y a